اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطري بكي جلت يني دكلو ñi ngi yëkkati kàddu di ci jiital sant buur yàlla tabaraka wa taala di ko ñaan mu dollee julli ala qiblati l arwaxi di maulana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram aki saxaabaam ak soxnaam yaag boole njabootam ga salaatu wassalaam boo xam ni danay baawaan di xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk ala siraat al yàlla buur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ala siraat al mustaqim di ñaan suñu borom tabaraka wa taala niiri ngërëmam yaak niiri barkeem yaak niiri xéewalam yaak yàlla bu mu deñ di ko dotti ala darixi cheikhina abil abbasi ahmad tijani ak mboole xalifaam yaak muqaddamam yaak mboole njabootam gaak mboole taalibeem yaak soppeem ya yàlla na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg e tabarakallah di ñaanal yàlla subhanahu wa taala sunu sëriñ sunu maam cheikh alhaaji malik radiallahu anhu yal na buur yàlla dolli ay ngërëmam yal na buur yàlla dolli quwwa ruuxaaniyaam yal na buur yàlla dolli ay ndondalam yal na buur yàlla taas ñu ci ay barkeem ci eh, eh, liggéey bu mag bii nga xamante ni bii ni tabaarakallahu moo di xilaasu zahabi fi siirati xayril arabi tabaarakallahu ñu tolloon nag mbokk yi ca alfaslu thani fi dikri abaihi sallallahu alayhi wa sallama wa ummahatihim muy bunt bi nga xam ni moom mooy jàngale way juróom ya moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam way juróom yu góor ya ak seeni ndey maanaa way juróom yu góor ya ak maamam yu jigéen yi maamam yu góor yi ak maamam yu jigéen yi waaw noonu rek parce que nag fokk ngeen xam ni askan dafa am solo ci nit tabarakallah dégg nga moo tax mu ni yow mi nga xam ni yaa ngi daj coono bu ne te lenn rek di sa ittee bëgg a xam maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallama danaa la ko tafsilal danaa la ko teqaleel danaa la ko leeralal leeraloon nañu baatub muhammad lu muy tekki ci gàttal bi siratin mujaza mhm. wala bok bi sifatin mujaza waaw ci melawu gàtt lañ ko leerale woon leeraloon nañu itam abdullah leeraloon nañu shaybata ñi ngi woon ci hashim foofu lañ tolloon mhm. dañu wax nag ni tabarakallah kooku nga xam ni moom lañ doon woowee Hachim wax naa leen ni tuddul Hachim amrul ala la tuddoon li uluwi martabatihi ndax moom dafa doon ku kowe martaba moo tax arab yi ko woowee amrul maanaam amri ji ñu yokk ci al ala waaye nag turam dëgg-dëgg moo doon amr waaw moo doon amr moo tax ba tey rek ci ngëneel yi nga xam ne moom la yàlla defal maamam jii di amr parce que bu ngeen gisee may xuus ci maami yonent bi alayhi salatu wasalaam di leen jël kenn par kenn ala qadri ilmina ak li ñu yàlla may ñu yër ko ci téere yi ñu di ko bokk ak mbokk yi du dara lu dut ni siraj malik radiallahu anhu wax nañu ni xilaas bi ñett la ko def ñett la ko def benn bi mi ngi ci yax bi benn bi mi ngi ci sharxa bi benn bi mi ngi ci dënnam li ne ci dënnam ku mu ko waxul mënoo koo xam mi ngi koy wax ay nit nag tey ilaa mina haada kooku moom amul benn rëdd li nekk ci sharxa bi foog nga bul ko déggee sharxa bi rek li ñu sharxa ci xilaas noonu déedéet mboole téere yi nga xam ne daf ci sukkandiku pour taalif xilaas moom bañ ne ba ba mu ne xilaas rek la jeexal wax ji kon loolu seggit la da ngay dem ca fañ ko seggee bu fekkee da nga koo bëgg a yaatal mm-hmm. loolu du lu mën ñàkk loolu moo tax ñu dellu ci téere yi nga xam ni ca la seggee ngir mëna yaatal li nga xamanteni bi ni moo di liggéeyam bi radiallahu anhu wa nafana allahu bi barakati cey mawdo xoolal li wax muhammadun نور عبد الله شيبة هاشم وعبد مناف مع قصيهم واو كان مودون هاشم نك بخون نانكو عمرو العلاء دانيو سولو جليتي الامام سهل الامام سهل الصعلوكي رضي الله عنه داف دان واخ موني يونتبي عليه الصلاه والسلام داف واخون تي بن حديث موني فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام نينا جيجيني ادنا بي نغنيل بيغا خامني موم لا يالا ديفال سونو عائشه امنا ام المؤمنين رضي الله عنها دي سونو عائشه تو داف فوك نين خامني يونتبي عليه الصلاه والسلام سخنامي sunu ay ndey lañu loolu moo waral sunu borom tabaraka wa taala ni bokkul ci li ma leen may wala an tankixu azwajahu min baadihi abada bokkul ci li ma leen may ngeen di denc soxna yonent bi gannaawam kuñ dul denc say soxna kuñ dul denc say soxna te yonent boole ci wax ni itam nahnu maachira al ambiya laa nuurasu wa ma taraknaahu sadaqa ñun boole yonent yi kenn duñu donn te luñ bàyyi sarax la koo xam ni nee nañu yow juge nga fi dee nga loolu de lañ wax te alquran neena na bu kenn donn say soxna yow ci sa bopp nga wax ni nun kenn duñu donn lu ñu fi bàyyi sarax la te ku dee ñu donn la te ku dee ek dana woon dañu war a takkat sa ay soxla ñu dem sa yi feneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi tabaraka wa taala wax ñu ci alquran ni mayuma leen ngeen denc ay soxnaam ndax inna dalikum kaana inda allahi azima loolu lu garaaw lu rëy la ci yàlla bu ko def benn ba pare mu it ni ñun yonent yi kenn duñu doon lu ñu bàyyi sara loolu mooy tegte ne yonent bi deewul ku dee ñu donn la jeex na wax ji wax ji loolu rek lay wundu wundul leneen faqat est-ce que dégg nga sama wax hmm. aywa hmm. foofu dañ ci ñëw dañ ci xuus insha allahu taala luy wane ne yonente bi alayhi salatu salaam mi ngi dund xay dañ ci ñëw bu soobe yàlla utal ko programme waxtaan ci wala benn jotaay lañ koy def insha allahu ngeen fàttali ma ko yonente bi nee na yaay aïchatu ni mu gën a jigéeni addina bi nee na gis nga loolu ñuy wax cere cere noonu mu gëne ci mboole ñam yi moo lay xamal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dafa bokk ci ay fonction nutritionniste la waa ñu bari xamuñ loolu yonent bi lépp la jàngale jigéeni àddina bi ni ci yaay Aïchatu gëne nee na dafa mel ni cere ni mu gëne ci mboole ñam yi ka fadli saridi ala sairi taam dafa mel ni ngëne li yàlla def ci cere ni mu gëne ci mboole ñami àddina yi moo tax mbokk yi bàyyi leen xel ci cere Seydi Malick radiyallahu anhu gàmm ya nga xamante ni bii ni moom la daan gàmm ca Tiwaawan góor ga nga xamante ni bii ni muqaddamam la woon dëkkoon ci Sokone doon nitu yàlla bu mag daan wax ni sama kër gi jaamu naa yàlla ba ku yàlla na mu la faj sa aajo doo fi dugg góor gi bu daan dox du sol dal daawul sol mbaxana boo ko waxee mu ni jant rus naa lakk sama bopp bii ngir barkeb Seydi Hadji Malick dégg rus naa jam suma tànk yii ngir barkeb Seydi Hadji Malick këram guddi ko mbéccëg ñu ko daan woowee alaaji mbaara bu masaana bay ba nawet bi dal di daldi di dal di raaf dadaan daan ca génne lool moom lay bayyee xel si daaji Malick ca gàmmuk Tiwaawan nga mu doon ay booli cere yu mu ko daan dimbalee tal na ko yàlla fay waaw góor gi alaaji mbaara la tudd ci muqaddami si daaji Malick gi la bokkoon dégg nga kon mbokk yi cere cere nañ ci bàyyi xel waaw mag ñi duut ni woon bëgg lu yomba taxoon ñu daan ko déedéet dañu gën a dégg diine gën ñoo xam njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent bi moo wax ni gis nga ngëneel li yàlla defal yaay Aïcha ci mboole jigéeni àddina bi ni mu leen gëne nee na dafa mel ni cere gëne mboole ñam yi léegi nag xadis boobu ñu war ko firi ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay am loolu ñuy wax ay dimension et c'est tout à fait normal dafa am première chance am deuxième chance am chance cachée boo xamante ni bii ni faaw nga dem déglu nit yàlla yi nag ñu toqal ko kii sa nopp léegi nag ñu ne lan la namm ci ngëneel gi nga xam ni moo di cere ni mu gënee mboole ñam yi ñu ni déedéet xadis bi da koy delloo ci liñ la wax ni la ki njëkk a séddale loolu di cere gannaaw yoon ti yàlla ibrahim moo doon amrul ala ñu daan ko woowe hashim moo ko njëkk séddale séddale googu mu daan séddale aw ñam nag ca la sange woon ca la tiime woon mboole ñoñ jamonoom ak mboole ñoñ Quraysh kon xadis bi def ñoo bëgg a jàngal araada fadla tharidi fala fa amrul ala alladi aduma wa qadruhu daf dafa dafa dafa bëgg a wax ni eh, eh, kon ndekete cere ni mu gëne mboolem ñoom yi lim ci namm mooy amrul ala ni mu gëne ak ni mu tiime ca jamono mboole ñooñ Quraysh kooku nga xam ni nee na njariñam njariñ lu mag la woon darajaam daraja bu mag la woon te aw yiwam dafa matale woon ak mbaaxam dafa matale woon amma xayruhu wa birruhu ah eh, radiallahu anhu kooku maam la woon ci maam yonente bi alayhi salatu salaam et bu ko defee nag dañu wax ni moom nga xamante ni bii ni moo di amrul ala dafa nekkoon yi ay jikkoom la woon mbokk yi amr moomu moom la ñuy wax hashim wax naa leen hachim mi ngi jóge ci hashama bi firi séddale na hachimun mooy aji séddale ndax li annahu kaana awalu man hashama atharida baada jaddihi ibrahima alxalil alayhi alsalatu wassalaam loolu moo tax wa kaana hachimun yaxmilu bna sabil wa yu wa yuamminal wa yuamminu alxaaif moom dafa bokkoon ci ay jikkoom fu mu mosaan a gis koo xam ni doomi yoon la doomi yoon mooy ku ne ci yoon di tukki gàllankooru xëy na am na jafe-jafe yi lu ko jëlee fi mu ne yóbbu ko fa mu bëgg a jëm muy ibnu sabil muy doomi yoon ku gàllankooru ciw yoon fu ko mos a gis du ko jox xaalis yam ci de waaye da koy yóbbu ba fa mu jëm yaxmilu la wax da daan gàddu ibnu sabil gàddu ko ci jox ko mu lekk gàddu ko ci jox ko mu naan gàddu ko ci jële ko ci barab ba mu nekk yóbbu ko ba fa mu jëm te mboone amul ala mi guddul fan mbokk yi am nañu ni vingt ans dund am nañu ni vingt cinq ans la dund xoolal bàyyi yonente bi alayhi salaam dix huit ans la dund mbokk yi fan yu gudd yi nit ñi bëgg léegi la xew amrul alaami ak jëfam yu rëy yii yëpp vingt ans vingt cinq ans maximum la dund ñaar fukki at ak juróom wala ñaar fukki at nee nañu moom la dund waaye seetal loolu waaye seetal loolu moo tax nee na daan na it sécuriser koo xamante ni bii ni xëy na ku am njaqare la wala ku tiit wala ku ragal boo laqatoo ci moom mii amrul ala da jeex na am nga sécurité amul werante amrul ala mii loolu dafa bokkoon ci ay jikkoom te mbokk yi loolu nag dafa am solo dégg nga daanañ wax nañ ni it moom bokk na ci maam yonent bi ñi nga xamante ni bii ni bu meer was bu weer masaana teru ah ter teg weer maanaa bu weer tàmbalee fan bu njëkk ba rek am na lum daan def daan ko wax jëmale ko ci waa Quraysh nañ ko déglu mbokk yi dañ wax ni wa qad dakara annahu kaana ida halla hilaalun أو إذا هل هلال هلال ذي الحجة أو ذي هلال ذي الحجة ها قام صبيحته وأسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطب يقول في خطبته weeru zil xijja muy weer wi nga xam ni ci weeri aj yi la bokk te daanaka moom la ñuy ajee ñun muy weeru aj moom la ñuy wax weeru tëbaski mooy zil xijja bu masaana jot bés bu njëkk ba bu xeye limi muy def moy day dem wër dig gënaawam ca kaaba ga allahu akbar ba pare nak tàmbali jakarlok nit ñi di def discours waaw waaw wa yaxtubu moy muy def discours lan lay wax da fay wax muni ya ma'shara quraish innakum saadatu al arab ahsanuha wujuha wa a'dhamuha ahlaman ay uqula واوسط العرب اي اشرفها انسابا واقرب العرب بالعرب ارحاما نانيو داف لين دان واخ ني لين يين بولم قريش نغين يك ني ورانتي امول سي ني يني سانغي عربي كون لي سيراج مالك بو اندي تي بونتو با تي كانم فالعرب خير اناس ثم خيرهم قريشهم جيكو كو واخ تي كم كو جيلي يت كوكو جيكو كو واخ waaye Maodo baax bëgg wax ni comme man téere bi may bind tafila bi ak qafiya bi am na koo xamante ni bii ni defoon na tafila bu mel noonu ci qafiya bu mel noonu mooy baxaru bi ma bindee muy baxaru basiit am na ku ca bindoon muy tafila bi waaye qafiya bi ma bindee it am na ku ca bind muy miimiya te la mu wax soxla naa ko dama koy jël ba pare du ma yem ci jël ko waaye ma tagg ko yëkkati ko ñëpp xam ni am na ku ma jiitu defa def na loolu ba ma ca accès bëggoon naa koo def waaye fekk naa mu def ko du ma ko baamu moom lay wax naan lillahi daru alladi qad qaala maadixahu jazaahu mawlaahu xayran gayra munsarimi falurbu xayru unaasin summa xayruhumu quraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi radiallahu anhu kon loolu amrul ala bii di maam yonente bi alayhi salaam moo ko daan wax yaa maacharu quraish innakum saadatul arab yéenay sangi arab yi yéen waa quraish wax naa leen baatu quraish li muy tekki quraish li muy tekki mi ngi juge ci xaracha maalan mooy koo xam ne dafay dajale alal quraish du giir ay giir la dañ leen a tudde seen turu jikko ak seen turu fonction yu ñu daan def ca yooya jamono parce que dañ daan commerce daan def import ak export daan def loolu ñuy tuddee tourisme ndax ñoom naka jekk loolu moo mosoon a nekk seen ay facteur de développement yoo xam ni ci lañ daan yëngu daan ca daan ca xam nga boo xoolee li yàlla wax ci alquran ca li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata chitaa wa sayf muy import ak export falyabudu rabba hada al kooku ku ne xam na ni moom mooy tourisme bi alladi ataamahum min juin wa amanahum min xawf muy sécurité alimentaire ak loolu nga xamante ni bii nii mooy sécurité de manière euh, euh, générale ñaar yu ñeenti yii mu wax ab société mën na ci taxawee ab société mën na ci suqalikoo xam naa buñ ca yeggee rek allah allahu ñu gën koo yaatal kon amrul ala weeru tabaski bu ma saana teru mu woor ko ni aj nit ñi daañu ñëw di ziyaara si néeg bi mbokk yi daana wax waa Quraysh ni leen yéenay sangi arab yi yéene leen gën a rafet xar kanam ahsanuha wujuha ndeysaan واعظمها احلاما تين يين لين غن إيه؟ ري خيل واخنا دغ دي عربي دني ري خيل واي وا قريش تي راو اهم لي تخ يالا تان يونت يالا محمد تي بير قريش كوكو امر مادي لولو مير لا دنگ با باري ني لين يين واوسط العرب يين teyit wa aqrabul arabi bil arabi arhama yéen yéen a gën a jegeñ ci arab yi nga xam ni moom ak bokk maanaa ñi tax ñuy wax ay arab dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg buñ koy wax ci gàttal mooy waa Quraysh loolu loolu mooy wa aqrabul arabi bil arabi arhama ba pare ni leen yaa ma'shara Quraysh innakum jiraanu baytillahi taala akramakumullahu taala biwilayatihi وخصكم بجواره دون بني إسماعيل waaye seetal bii xutba waaye mu ni leen yéen waa Quraysh lay waxal werante amul ci ni yéen yéen de yéenay dëkkandoo néegub yàlla bi néegub yàlla bi du seen dëkkandoo de yéen yéenay dëkkandoo kon mi ngi jàngale ni néegub yàlla bi moo fi jiitu Makka amul werante ndax inna awwala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata waxul inna la awwala baytin wudia fi l ardi déedéet wudia linnaasi la wax alquran moom dafa jar ñu koy seetlu dégg mu ni leen innakum werante amul ci ne yéen jiraanu baytillah yéenay dëkkandoo néegub yàlla bi taala bur yàlla moomu jombi caaxaan yéenay dëkkandoo néegam bi akramakumullahu taala bur yàlla mi jombi caaxaan moo leen terale bi wilayatihi ci ngeen dëppoo maanaam ci ngeen méngoo ko maanaam lépp loo xam ni lu ñu war a saytu la ci néeg bi lu ñu war a toppatoo la ci néeg bi lu ñu war a joyanti la ak nuñ koy organiser ci biir activité loolu yàlla ci seen loxo la ko teg al wilaya muy palu lépp lu ci aju yàlla ci seen loxo la ko teg wa xassakum bi jiwaarihi duna bani ismail mboole doomi yent yàlla ismail yi nga xam ni dañoo séddali ko ci àddina bi yéen ci quraysh kese la ci yàlla jagleel ngeen dëkkaale néeg bi nga xam ni moo di al almusharrafa wa innahu yaatikum zuwaarullah يعظمون بيته فهم أضيافه وأحق من أكرم أضياف الله أنتم fa akrimu dayfahu wa zuwaarahu allahu akbar nee na werante amul ci ni am na ñoo xam ne dañuy dikk di ziyaara si néegub yàlla bi di ko màggal kon yëg leen ni ñooñee gani néeg bi lañu gani yàlla lañu te ki gën a yey ci teral gani yàlla yi mooy yéen waa Quraysh loolu leen wax waaw loolu leen wax de daf leen ni wa innahu werante amul ci ni yaatiikum mi ngi dina leen dikkal zuwaarullah ñi nga xam dañu ñëw di ziyaara si yàlla yuazimuuna baytahu di màggal néegam bile te fahum ñooñee adyaafahu gani néeg bi lañu gani yàlla lañu wa axaqu man akrama adyaaf allahi antum te ñu gën a yey ci di teral gani yàlla yi du kenn ku dul yéen waa Quraysh kon fa akrimu dayfahu wa duwaarahu rikk waay rikk waay na ngeen teral gani yàlla yi na ngeen teral ñi ñëw di ziyaara si yàlla subhanahu wa taala naka jekk dafa bokk ci aadatul arab loolu ñuy wax ikraamu dayf لول موم نكا جيك كي سين عادة لبوك إطعام الطعام أك إكرام الضيف أك إفشاء السلام ينكا جيك دفو بوك تي عادة العرب ما تفسر إن شيخ جالسي رضي الله عنه دفك دان وخ بران فيري فالعرب خير أناس إنه نكوي فيري دفني عرب بي نيونو جينا جيكي سورسو بي ما نام لي تخنيت باخ نيوم نيونو كو جينا جيكي إفكتيف ما يونان تبي تخنيت باخ مي نيوم نيونو جينا جيكي يونان تبي ما تخنيو جينا جيني سيتو دينغا وخ بي lolu motax muni mom mom mom mom moom amrul ala di mam yonent bi alayhi salatu wassalam wa bu la nexe nga di ñaarelu mam yonent bi mooy hachim ndax boo nee mouhamadou nuuru abdullahi baayam dem shaybata maamam bu ñeuk hashim ñëw daf dan wax bu weeru ak teroo muy weeru tabaski daf daan wax na ngeen yëg ni yéen waa Quraysh gani yàlla yi kenn gën te ci tere leen ko ma yéen kon nag na ngeen yëg ni ñoom danañu ñëw ànd ak seeni i suggu sugg danañu ñëw ak seenu pënd danañu ñëw ak seen xiif danañu ñëw ak seen gileem yu woos gileem yoo xam ni dañuy xiif ba seen biir yi tapp ci seen ndigg yi waay waaye bu boobaa na ngeen teral gani yàlla yooyu ak ñooñu nga xam ne dañuy ziyaara néeg bi té gis nga li bi alquran diké ni mu ko waxé lako alquran doon waxé amul wéranté amul wéranté باتو بات بيم وخكم لي وخ فانهم ياتون شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر جمع بموي ضوامر موي غليم ياي واي ووس ادم كو جانغ تي kooku moom waa daara ji ñoo moom boobu ca sa ndeysaan maqsuratu bnu Durayd ba góor ga ndeysaan ak gileemam ga ba muy wax naan xuusin ka ashba ka ashbaahil xanaaya dummarin waaw yargufna bil amshaaji min jëzbil bura waaw lay ndeysaan waaw mag ñi dañ dañ dañ dañ yéeme tere yooyu daan ca daara ja ndeysaan waaw ma ngi leen daan wax ni sul su lugal arabia lugal arabia boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi mi ngi ci téere boobu ñu tuddee maq bu nuudu rëyd ndeysaan ñun dañ ko daan tari booba ñan ca dara ja ñett téeméeri bayit la ba dañ ko daan jongante di ko tari ya dabiyatan ashbaha bil maha tara al khudama bayna asjari naqa imma tara rasi haka lawnuhu turrata subhin ka azyali duja fi muswaddihi misla مسوده an اشتعال fi في al الغضا فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فنجلا وغاض ماء شرة دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى بكده في مبكي إيه، إيه، إيه، تيري بابو نيسان ندق غور غديكو وخنا نخوسين جلم يي وي قد اي بت دانيو mu ni ka xanaa yaa ba mel ni banti téeg téeg xam ngeen am téeg xam ngeen téeg mooy étage bu njëkk hmm. mag ñi buñ daan tabax bant yi nga xam ni moom la ñuy galiñ nii hmm. di ci teg bant yooyu la ñuy wax am téeg hmm. noonu ñu bant yi di sewe noonu bant yi di woose biiri giléem ya noonu la mel mu ni yar xuuf na giléem ya ña ngay bori bil am saaji ci dëtt min jës bil buraa nee na ngir xëccug noska ya noska ya nga xam ne moom la ñu def ci seen bakkan ya xëcc gu metti ga nga xam ne ko koy njaabal moom la koy xëcc dem na ba mujj def ci ay góom ndeysaan nee na ma ngay bëri di génne ay dët daana ñoom daanañ wane naka jekk giléem c'est l'animal adapté au désert bokk na ci li tax yonente bi alayhi salaam bi muy gàddaay du jóge màkk ji dem madinatul munawwara gëléem la war du caaxaan mukk afalaa yanduruuna ilal ibili kayfa xuliqat waxoon naa leen ko ci jawaahir ya daañ ci dellu siwaat gëléem dafa bokk ci rabi àll yi gën a tedd ci rabi àll yi du caaxaan mukk waaw su ko defee nag dafa wax mu ni moom amrul ala fa innahum werante amul ci ni ñoom maanaam ñoom ñoo ñu di bàyyi ko ci gox yi tàq fasanti koy gos yi tàqali koy di jóge fu nekk di ñëw di ziyaare si néeg bi yaatuuna danañu ñëw shuusan nee na di woy ànd ak seeni sugg-sugg mooy seen karaw ya pënd euh, jaxasoo ruuburan di woy pënd weextal min kulli balad bawoo ci benn dëkk ci bawoo ci dëkk bu ne ala dawaamira kal qidaaxi nee ñu war ci kaw gëléem yoo xam ne gëléem yu woos lañu ba mel ni ay bant ndax jeex takk waay waay bu ñu ñëwee fa akrimu dayfahu wa duwaara baytihi nee na na ngeen teral ganam ña yonente bi alayhi salatu salaam waxul ci xadis man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfa fal yukrim dayfa yonente bi nee na képp ku gëm yàlla gëm bés bu mujj ba maanaam ku gëm ni alaxira am na yàlla dana fay jëf loolu rek lay firi ba du baatu bés bu mujj ba loolu lay firi maanaam ku gëm ni yàlla am na te gëm ni yàlla dana fay jëf ngal la boo amee gan na nga ko teral noonu la waxee fal yukrim dayfahu bul wax teral na na nga sa gande firiwul loolu ngal la dalaa soññ fal yukrim ngal la na teral ngal la na teral dayfahu ganam hmm. kon loolu la amru doon wax kon da xam ne yonente alayhi salatu salaam lii daal toqi koo ci ay maamam naka jekk ci deret ji la nekk sallallahu alayhi wa loolu motax tax mu ni fa akrimu na ngeen teral ci khutbam bala ko don wax bu wero aj mom hashim di amrul ala nee fa akrimu na ngeen teral wa yéen wa quraish bayfahu ganam ni mom yàlla wa zuwar baytihi ak ñi nga xamni ñu doon ziyaare negam ba ndax nak fa wa rabbi al binya law kana li mal yahtamilu dhalika la lakafaytu la dafa ni law kaana lii maalun bu fekkoon la yellente kon dafa wax ni sax maa ngi giiñ ci borom néeg bi law kaana lii maal yellente kon ma am alal joo xam ni yaxtamilu dhalik dana mën a gàddu mboole dépense yi nga xam ni dangeen ko soxla ci aj gi yëpp kon de su boobaa danaa ko jël xëpp ko ci aj gi kenn du xiif kenn du mar kenn rafle لولا لولا تخمني تو وانا مخرج من طيب مالي وحلاله ما لم يق ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم بظلم ولم يدخل فيه حرام مني نك دينا جين كي سما ارال لا تي غنا تاي لا تي غنا لو وايا نك فيك علال جا دوغو سي لو خامني داي دوغو مبوك كيس نغي ني دي دان خول في ني ديف بو باخ نيت كين ورو كو ديمبري سي مو يالله nit kenn waru koo dimbali ci lu neexul yàlla dañ ko war a dimbali ci mu bàyyi mooy yàlla dañ ko war a dimbali ci mu bàyyi lu neexul yàlla loola tax mu ni danaa génne sama alal la ca gën a teey gën caale waaye feek du tabbi ci luy dogu mbokk wala loo xamante ni bii ni dañ cay joggi di tooñ wala loo xam ne day tabbi ci lu xaram mu ni nag fa man shaa minkum an yafaala misla dalik faal képp koo xamante ni bii ni sook na ko ci yéen mu def loolu maanaam li ma wax képp koo xam ne forcé wu kenn maanaam ah képp koo xamante ni bii nii def bismillah defal ba pare it ni wa asalukum bi xurmati hada albayti an laa yaxruja rajulun minkumu min maalihi li karamati duwaari baytillahi illa tayiba mun leen maa ngi leen di ñaan ci war mooy ki nga xam ne mooy borom néeg bii maa leen di ñaan ci war néeg bii ngal kenn ci yéen bu mu génne ci alalam dégg nga ko euh, euh, euh, ngir terale ko gani yàlla yii ak ñi ñëw di ziyaare si yàlla ak dëgëral leen ca maanaam jox leen ca ñu lekk jox leen ca lu naan bu ca kenn génne ci alalam lu dul lu lew maanaam bu leen fi dundale kenn lu mooy alal ju lew illa tayiban kon nga xam ni yii naka jekk mi ngi fi woon dañ ko réglementé wul organisé wuñ ko yonente bi alayhi salatu salaam nag dikk rek nekk organisateur bi wax naa ko nit la yàlla mujj bind lu baax fi lañ ko fekk lu bon fi lañ ko fekk dafa wàcc ànd ak yonent yàlla aadama loolu fokk ñu xam ko aha nee na itam kooku nga xamante ni bii ni moom mooy amrul ala ba mu waxee loolu moo tax yuxrijuuna min amwalihim fa yadacuunahu fi daari nadwa waa quraysh yëpp daal di daje daal di génne seen alal ñu daal di koy yóbbu ca daaru nadwa nga xam ni mooy néeg ba taqaloo woon ak Kaaba ga waa quraish daan fa daje daan fa tenir seen ay réunion léegi nag dafa mel ni il faut que mu am benn parenthèse boo xam ni danañ ko leeral tuuti ndax dafa xaw a nuru lu xaw a lëndëm ñu baal ma xam nga Cheybatul Hamdi ji ak Abdul Muttalib bi waaw Cheybatul Hamdi bi ak Abdul Muttalib bi parce que Hachim mii ñi wax guddul fan déedéet mooy bàyyi Abdul Muttalib mooy bàyyi Shaybata mooy Shaybatal Hamd mais moom guddul fan. kon nan la Abdul Muttalib tabbe ci loxoy Muttalib loolu tam il faut nu leeral ko léegi nag dañu wax ni kooku nga xam ni moo di Hamd di Abdul Muttalib li tax ñu tuddee ko Shaybatal Hamd ak li tax ñu tuddee ko Abdul Muttalib ñaari baat yooyu rek laa bëgg leeralaat tuuti dabaatal ko ca la ma njëkkoon a wax incha allah dañu wax ni. baayam bii nga xam ni moo doon Hachim ndax moom Hachim moo ko jur Muttalib juru ko Muttalib ak Hachim ñoom ñoo bokk ndey ak baay Hachim dafa teel a génn àddina bi mu génnee àddina nag ki nga xam ni moo di Muttalib di frère am daal di jël kooku nga xam ni moo di Shaybat al-Hamd waaye nag ci yan anam la ko jëli ak nan la histoire bi demee loolu mooy wax ci mbokk yi mhm. dañu wax ni kii nga xamante ni bii ni moo di Hachim dafa waxoon waxtaanoon ak mbokkam moomu nga xam ni moo di Muttalib booba ña ca Makka ba mu demee ba dara des lu dul mu war a faatu daf ko ni woon adrik abdaka yaa shaybat alhamdi fa huwa bi yasrib daf ko ni demal nga jëli sa jaam ba fekk namm ci sa jaam waaye lim ci namm naka jekk ci aaday arab nit bu baayam génnee àddina ka nga xam ni moo ko yar dañ ko daan woowee jaamub diw loolu dafa bokk min aadatil arab dégg nga ko de loolu la ñu wax léegi am nañu ni nag baatu abdul muttalib bi foofu la jugee ndax hashim moo ko waxee noonu adrik abdaka demal nga dabi sa jaam bi ndax ma nga ca yasrib muy madinatul munawwara moo tax gis nga mbokk yi bu may wax ci abdul muttalib ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa bari lu ñu nirale ñoom ñaar dafa bari lu ñu nuroo ñoom ñaar li tax yàlla takke leen boole leen mu participer ci yarub yonent bi alayhi salaatu salaam am na ay taalil de na ay pourquoi yu bari yu nekk ci biir. kewal du tëb doom jëbët. kewal du tëb jekk dégg de nee na am na ñu ni foofu daal bokk na ci li tax ñu tuddee ko Abdul Muttalib am na nag ñeneen ñoo xam ni dañoo nettali ni kii nga xam ni moo di Hachim commerçant la woon boo xam ni dafa demoon Cham. ba mu demee Cham mu daal di wàcc ci benn gàdd goo xam ni ñi ngi bokkoon ci waa giir Bani Najjaar jaar di ngeen leen di dégg mhm. ca Madinatul Munawwara mhm. ba mu demee mu daal di fay takk benn jigéen waaye ñu chartanteeg moom ña nga xam ne ñoo ko may jigéen ja ca Banu Najjaar dañoo chartanteeg Hachim fekk mu jóge ca euh, Cham ci benn tukki bu mu demoon doon euh, def commerce jaar foofu Cham takk fa benn jigéen ñooñu chartanteeg moom waaw dafa doon dem tukki sham jóge Cham jaar Madina waaw muy yesrib ca banu najjaar mu takk fa benn jigéen mais nag liñ ko sàttal mooy laa talidu waladan illa fi ahliha laa talidu waladan illa fi ahliha jigéen bi mën nañ la ko may nga yóbbu waaye bu ëmbee du ëmbee fudul ci ay mbokkam te loolu naka jekk aada la jigéen sax boo ko yoree ci kër waaw yàlla dogal na bu amee doom xam nga jooyi xale góor xamu ko tàmm ko mënu ko ko bokk na ci li tax ñaare yooyu ba mosaana am jigéen hmm. bu tudd ma jàllee une semaine deux semaines rek hmm. borom këram waajal ko mu dem ca yaayam ca ay mbokkam hmm. ba tax wolof daf koy wax nit du të ay mbokkam loolu wax ju xóot la wax ju yaatu la lépp a ngi ci waaw moo tax jigéen boo ko takkee da ngay fexe juboo ki mbokkam c'est très important c'est très très important waaw nañ ci bayi xel dégg nga nee na ñu ni ko daal chartub li ñu lay may sunu doom ñun waa banu najjar mooy laa talidu waladan illa fi ahliha du ame fenn doom fudul fii mën nga koo jël nga yóbbu waaye bu ëmbe du imbee fenn fudul fii fii lay amee doom mu nangu dal di jël soxna si ànd moom dellu dem makkatal mukarrama ba mu demee makkatal mukarrama nag daldi di soxna sa yàlla dogal soxna sa dal di cay jële ëmb moom maamam jii di Hashim jaamrul ala lay ne tali de dégg ba soxna si ëmbee ba ëmb ba diis amrul ala kom jotoon na joxe kàddoom di as gor maamu yonent bi kenn mus cee war daa gàdduwaat soxna si ak ëmb ba defal ko bergen ci kaw gëléem jiitu gëléem ga topp ca ñu nukku nukki ba àgg ca madinatul munawwara ca giir na jaar ñëw wëllërante woon ak moom ci ni ko daañ la may sunu doom waaye dufa fa bu fa ëmbee du fa imbee mu indil leen ko nag léegi nag ba leen ko indilee daal di koy bàyyeeg ñoom moom daal di continuer yoonam dem nag daal di delluwaat chambre pour defi commerce am faatu ci diggante bi nii la mbir yi tëddee léegi ba mu faatoo nag wax nañu ni wa umruhu waqta idin ay xiina idin ishruna sana وقيل خمس وعشرون سنة الله أكبر نانا نجبو بجامنو مام هاشم دي عمرو العلا دي مام مام نيارل مام يونتبي عليه الصلاة والسلام بو بجامنو مانغا أمون 20 عام أمنا نيني 25 عام بوكي الفوق نيو خمني لعرب يدي وخنان أولوية العمر المبارك على العمر الطويل جس نجد ورا خول بريوريتي تي فان لانك تي دندو باركيل ولا دندو كو priorité bi du dund gu gudd waaye priorité bi mooy dund gu barkeel kii dund gee barkeel moo tax lu mu néew néew moom dundam gi xoolal lim fi liggéey yëpp xoolal lim fi def yëpp dégg ko de euh, euh, euh, radiyallahu anhu dégg nga nee na nag ba loolu amee mu faatu kooku nga xamante ne bi ni moo di Shaybat al-Hamdi ca la ca la ca gane jamono ndeysaan nekk Madinatul Munawwara moom daa jëkkee Madina mujjee Màkka yonent bi daa jëkkee Màkka mujjee Madina moo tax ma ñu la ñoom ñaar li ñu niwle daa bari moo tax mu bëggoon ñun yàlla Muhammadin alayhi salaatu wasalaam waaw ah, pour la xam Abdul Muttalib di woon nitu kese daana tëddandoo yonent bi alayhi salaatu salaam ba guddi jot mu lamb lamb dajul yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga loolu keneen ku dul nga dof bunt bi lamb daju booba yonent bi nekk parental ci rasulullahi Abdul Muttalib bu bunt bi yonantu woo ko bàyyi bàyyi bàyyi foo jëm mu ne ko yow doon seet mu ne ko maa ngi dem doon foo malaayika yi seetal lii <laughs> ah eh, Sénégal dafa neex ndeysaan moo tax eh, xol du neex mukk waay hmm. te it du set ilaa yawmil qiyaamati fekk maa ngi dégg nit ñi di jël yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ématle wala ñu koy tëkkale wala ñu koy niirale ak seen sëriñ yii hmm. loolu xel daju ko mbokk yi ah baax na nañ bañ a bàyyi yooyu nee na ba loolu amee cheybat alhamd ca la gane jamono ba mu ganee jamono mu daal di sax ca madinatal munawwara sabaa siniin mu sax fa juróom-ñaari at am ñu ni juróom-ñetti at am benn bés nag benn waay xoolal daal di jóge makkatal mukarrama daal di jaar madinatul munawwara rek gis ay xale yuy fo di sànni ay fit mais mu gis ci benn xale boo xam ne xar kanam ba jëba ngay takk di billi mu nuroo ko Hachim lool lool lool lool muy amrul ala di ma ma ñaareelu maam yonente bi alayhi salatu salaam waa ji daal di ñëw ba ci ba ci ba ci xale yi daldi di leen di laaj moom lay wax naan fa marra rajulun ala gilmanin yalabun ay yantadiluuna bi siham dégg nga wa ida gulaamun fihim ida asab qaal benn xale xale yi dañuy foo samp benn bant di taawi fit mais waa ji gis benn xale ci biir xale yi koo xam ni ni mu rafete dafa jéggi dayoo waaye njàmbaar gi nekk ci moom dafa jéggi dayoo waaye xale bi daf daan tagg boppam ni muy tagg boppam nag yaayam moo ko jàngal xale bi saa yu sànnee fit ba jàmbant bi dafay wax ni ana sayidul batha skay loolu lay wax ana sayidul batha da nga fi ne yonent saa sallam boo xam ne mu doon wax naan ana sayidu di adam wala faxr aadamu fa man duunahu waa liwaa'i loolu ci maamam yi la ko jëlee dañu xamoon seen bopp bien vrai que le moi est xam nañ ko ñun waaye am na koo xamante ni bii nii le moi mën nañ koon nangu ndax dafa bëgg ñu royee ko ci moom waaye du daf ko bëgg tiime nit ñi déedéet ah bokkul xale bi saa yu sànnee ba jam bi dafay wax ni ana ana bunu sayyidil batha ana bunu sayyidil batha man may domi ka nga xamni moy mooy sangi makkatal mukarrama kan mo don sangi makkatal mukarrama moy amrul ala moy hashim nenam man ma di domam li nga wax ci kooku yaay moko tele xamal li nak responsabilité wu jigen ñi la c'est très important lolu ba mu amé nga xamni mo makka de euh, setlu lolu di ni ko mimman anta ya gulaam wa sayidul batha bobu ci kan kan ci ñom kan ci ñoom nga kan ci ñoom nga xale bi di abdul muttalib dal di koy tontu ni ko ana shaybatu ibn hashim ibn abd manaf nit day xam askanam mbokk yi lolou dafa am solo waaw ana man mi ngay laaj ma di shaybatu ibn hashim man may doomi hashim je muy amrul ala ibn abd manaf abd manaf tudul woon abdu manaf muriirata la tudd danañ ci ñëw ci kanam dégg nga nee na nag waa ji nga xamante ni bii ni moo gis loolu ba mu ñibbisee nag daal di bàyyoo madinatul munawara dem makkatal mukarrama dafa fekk muttalib ma nga toog ci wenn doj mu nettali ko la mu gis wajada al muttalib jaalisan bil hijr fa ma mu nettali ko la mu gis muttalib daal di takk naaru go dëggal daal di takk gëleemam jubali madinatul munawara arab yi naka jëkk dañu fonk seen mbokk loolu moom seen seen c'est seen seen euh, seen ay vertu la ay jikko la seen baax la seen aada la un deret la maanaam ñoom dañu fonk seen mbokk mhm. bi mu amu ci problème déedéet amu ci un problème màkk doon sonal mooy doxa mieux loolu la mu nekkoon ñi xam lu yow dinañu nuñ def ak yow mhm. mhm. et c'est très important léegi waajo ba mu ko nettalee kooku nga xam ni moo di muttalib mi nga xam ni moo doon rakk ci kooku di haashim ndeysaan kooku daal di daal di daal di daal di jooy ndeysaan falamma raahu moom moom muttalib ba mu demee war gëlee moom ba àgg madinatul munawwara gis xale ba muy gis kooku nga xam ne moo di abdul muttalib doon doon shaybata nee nañ fa faadat aynaahu wa dammahu ilayhi xufyatan min ummihi ndeysaan daal di koy jël jooy ba sonn ndeysaan wëlbatiku nag Eh, eh, daal di daal di koy daal di koy làq ngir rek yaayam bañ koo gis ngir mu mën koo rawale waaye nag foofu am na ay riwaaya dafa am ñu ni da koo rawale abdul muttalib muy cheybat alhamd ni ko déedéet du ma siqi tànk te sama yaay mayu ma ndigalal ma dem <laughs> te loolu moo gën a wér ci xisa yi loolu la ko loolu nag ba mu amee ah muttalib daal di ni ko kon nag nanu dem ñu dem ci sa yaay ba ñu demee ci yaayam yaay ji daal ni ko in kunta turidu axda fa saa bu fekkente ne bi ni da nga koo bëgg a jël jël ko léegi léegi léegi léegi léegi am nañu wax loolu am nañu ni déedéet dafa am benn waay bu dikk fekka Muttalib fa mu nekk ni ko boo gaawul jël ko ba ko yaayam gisee mënoo wax lu tax mu bàyyi langa nga ànd ak moom di ko yóbbu ci ay mbokkam ca makkatal mukarrama ah ba loolu amee ah nee nañu ah, ah, ah, kooku di Muttalib daal di daal di woo kooku nga xam ni moo di Cheybat alhamd daal di ni ko oh, oh, yabna axi ana amuk wa qad aradtu eh, eh, aldihaba bik ila qawmik mm-hmm. man sa baay laa sa rakki baay laa damaa bëgg ànd ak yow yóbbu la ci say bokk mm-hmm. ca makkatal mukarrama ba mu ko waxee loolu ah eh, abdul muttalib daal di ñëw ba ci moom ba mu ñëwee ba ci moom fan talaqa nee nañu mu daal di dem ànd ak moom am na ñu nettalee noonu qissa bi mm-hmm. waaw léegi nag ba loola amee wax nañ ni yaayam daal di koy wër fu ne wër ko fu ne munta fexe fexe fexe fexe fexe ba gis ko ba mu xëyee après ñi lañ ko xamal ni ko kooku di mbokki baayam ba di Muttalib moo ko fi jël see démb yóbbu na ko ci ay bokkam ca Makkatal Mukarrama am na ñu wax loolu am na ñu ni déedéet demewul noonu de ni mu demee mooy kooku nga xamante ni bii ni euh, euh, moo di xam Hamd dafa juddu gannaaw ba baayam génnee àddina ci lay soog a gane jamono comme yonent bi rek salaay salaam rek moo tax man la moom li mu nuroog maamam moom yonent bi dafa bari abdul muttalib baayam génn na àddina lu yàgg moom muy soog a gujut judd bi alayhi salaatu salaam ñaari weer ci biir yaayam defaat na fa juróom weer soog a gane jamono ay seetal loolu léegi nag nee nañu mu daldi de am na xissa boo xam ne nag ñi nette dañu ni yaayam ci boppam Muttalib dafa dem ba ci way juróom wu jigéen daldi ni ko daal li ma bëgg rekk mooy nga bàyyi ma ma ànd ak kii di sama doom bii nga xam ni sama doomu freer la ma yóbbu ko ca ay mbokkam ca màkkatal mukarram ba mu ko waxee loolu ndax lu jiitu mu koy wax loolu moom Muttalib dafa wax kooku di doomam Shayba ni ko dama bëgg ñu ànd mu ni ko mande wax dëgg yàlla munumaa dem lu mooy sama yaay def ma caa jox ndigal kooku nag siiratu bnu Hisham ci téere yi cheikh alhaaji malik sukkandiku taalif xilaasu dahab moo indi riwaaya boobu te boobu bokk na ci riwaaya yi nga xam ni moo gën a wér waaw parce que dañu wax ni cheybat alhamd dafa ni inni lastu bi mufaaraq inni lastu bi mufaariqiha illa an taadana lii man de munumaa taqalikook sama yaay di ànd ak yow lu dul ni sama yaay moo ma jox ndigal la su dul loolu duma ko def yaayam ci boppam daal di ni ko am nga ndigalal ànd ak sa euh, euh, euh, baay bi lay nee nañu looloo tax mu daal di koy jël moom Muttalib daal di koy uuf teg ko ca kanamam mhm. yaay jaa jooy ndey saan waaye rek mu daal di rëppatal gëleemam daal di ànd ak moom daal di dem màkkatal mukarrama mhm. keroog nag ba muy dugg màkka mhm. tertu bu yéeme lañ ko tertu te tertu ga daa tombe ku ne nag naan Muttalib kii mu yor ni mu nuroog moom nu mu demee ñi naan ab jaamam la ñi naan doomi mbokkam la ñi naan ñi naan ñi naan loolu moo indi baatu abdul muttalib bi dégg nga wax bi léegi nag mbokk yi kon tabarakallah e, xaw naa yéeme lool waaye nag naka jekk de e, addinaa ni demee yàlla nañ yàlla defal tawfiq yàlla nañ yàlla defal sutura yàlla nañ yàlla dimbali yàlla nañ yàlla boole ci soppe yonente bi alayhi salaatu wassalaam ku xool jaar jaari maamam yii mhm. di nga xamni ni naka jekk mënta mel neneen nurut ni da abdul muttalib moo doon cheybat alhamd bayam don hashim doon amrul ala wax nañ ci mom gat gat lol ku ko jàngat ci jaar jaar yonent bi deppele ko di nga xamni ne alayhi salaatu wasalaam neexul ba neexul waye namu mel da ca judd namu mel da ca judd lol nak motax tax abdul muttalib nee na noonu la def demee ak nga shaybat alhamd ba ko indee nag gars yi ni kii mu àndal kan la mun leen sama jaam la ndax yére yamu soloon dafa xawoon a xaw a xotteeku te wax dëgg yàlla bëggu leen wax sama doomi mbokk la ndax am ca kersa lool am na ñu weddi sax wax boobu ñu déedéet ba mu ko jëlee ci yaayam rek daf ko jëndal ay yére ci yoon wi solal ko ko ba mu rafet waaw bu ko defee nag naka jekk ndax li si daaj Malick di wax naan fal xulf wuute kooku dafa nekk xilfu nax ji mi dafa taqook yoonu siira ñii dañuy wax lii ñii wax lii waaye li am solo te mët a xam rek mooy bàyyi xel ni yonent bi alayhi salaatu salaam ak maamam yooyu ay sangi jamono la ñu woon ay lampi jamono la ñu woon mm-hmm. kenn ku ci nekk ci sa jamono njiit nga woon royukaay nga woon mm-hmm. yal na yàlla yéegi leen ci seen barke sët bii yal na yàlla yéegi leen ci seen barzaku sët bii ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu ko defee mbokk yi comme ni ñu koy defee rek ñu bàyyante xel incha allah ci 77 102 32 24 et képp kuñ ci bëgg a jot rek incha allah